def ñaan demal ku jàng fi xasida ku jàng fi limi alxuraan yu bëree bëri bëri bëri loolu xel mën naa dal di sant bu baax nag suñu waajur yi nga xam ne ñu biir daara ji su may sant ci am nuyoo bi ñu ñoom laa koy jiitee bay bay mburu njaay mboolem kilifa yëpp ndax bu ñu xoolee fii suba ñoom jàng alxuraan fii lañ toog fee bu fii ñuy jullee fajar lañ ci doog a jógee jàng fi limi alxuraan yu bari lim ñu xasida yu bari te ñoom ñëpp suñuy waajur lañu bu leen sooboon dañuy toog ci ginnaaw toog ci ay seet siis wala ñu toog ci canapé yi daal ñu jiital nañ dem leen ci maram ci soxna yi ndax dañ liggéey mën naa dox waaye jëwriñ ja jiitu bu ñu xiyaatul xol rek lu bëri du mën a am lépp nag ci dimbalu suñu soxna mi nga xam ne kon ci jëwriñ jiitu woon te xalaatam akub liggéeyam dañu ci daara ji di sant coordinateur yi nga xam ne dañ leen a dénkoon liggéey bi te ñu amal ko amalin wu rafet sëñ bi moom koy dégg bi ma nekk bitim réew di ko dégg waxtu ne dinaa ma sëñ bi fii sa quantité dinaa ma ma ko ñun ki ñu lebal xam ne ki ñu liggéey xam nañ ko mu sëñ Tuubaa nañ ci engagé lu nekk sëñ bi dina àggal lépp te fii toog alhamdulilah la ñuy wax yaakaar naa ñun ñëpp ndax am na ci jàmm te ñu bari jàppoon nañu du am jàppoon nañu ne du am boobu nag at yi at yi gënoon metti kareen ci jamono ji ñu toll. ñu sant bu baax suñu jaage yi yoroon micro bi nit ku dal la def nañ lépp ci jàmm ba mu àgg ak maas mi jiitaloon ci wàllum baas bi ak Baye Fall mi ñu jiitaloon ci wàllum wàññi ak ñoom tamit ñu nekkoon ci kër yi beeg seen liggéey rafet na lool soxna yi tamit ñoom mention spéciale ndax saa bu ñu wootee ñoom dañuy ànd ak ñun jël seen alal yu bari def ci te damay wax waxtu nekk ne déplacé góor yomb na waaye déplacé jigéen moo gën a jafe ndax jigéen bu jug la muy àndal ngir jug day jafe kon saa bu ñu wootee ñoom ñu bàyyi nii def ñëw ànd ak ñun ba pare yëkkati seen alal alal yu bari seen Babacar jël def ko def ko ci liggéey bi. te bu leen sooboon mën nañu wax ne ñun kat ay soxna lañ dañuy liggéeyante rek kon yoruñu dara nañ ànd la ku lay woo ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa xamal ne laa bëgg dimbale loolu ñu gënoon jege Sëriñ Tuubaa lool te daana wax ne jooy ngir bëgg Sëriñ Tuubaa man farat laa ko def Cheikh Ibrahima daana wax ne murid lay ba jaxalaat takk sa biir jooy ñun ñii Babacar mi dama wax léegi ne ma suñ bi nañ ñaanal jeunesse bi ma ne ma kii jàng mi ngi jàng mi ngi neex nit ñaa ngi ko yëg mais amul ñu ko jox te pourtant dëgg la fii ñu a loolu nag dañuy jéem a delloo njukkal suñu Tuubaa rek te lépp moom la mën nañoo gis ñu bañ benn turam waaye aaju duñ am suñu Tuubaa faj mooy lépp man nag li may ñaan ci baaxu sëñ Fallu doon ñaan ci barke maam aw Bousso barke suñu tubaab mi ñu leen talal sant bi fii moom li ñu cay bëgg maa ngi dagaan suñu xol di ko dagaan bu wér maanaam fii di am ay bërëb bi ak ñi ko ñi ko ñi ko ron balaa déwén waxuma la ay millionnaire yomb na suñu xol mais ay multi multi multi millionnaire bokk ci. amiin maa ngi ñaan ci baax ko suñu xol ku gën a set xol yàlla na ko suñu tubaab def. balaa déwén daal maa ngi ñaan bu ñu nee dañuy bi. ñenn ci jëwriñu daayira bi wala ci membre daayira bi ne ah ñun xam na Fallou Ndiaye yi ñii fi nekkoon nekkoon Brésil te yónnee ak déem ak ñoom Fallou ñëpp rek am na at mu ñëwoon ñan na suñu Fallou ñun ñëpp ku bëgg bi dem ci dem bitim réew suñ suñ seen xol ba waxtu waa laajee ci daayira bi ñu joxe bu ko kenn amee joxe loolu nag maa ngi ñaanal ci rek ñi ñëpp ku ci sa xol gën a set seen xol set ñëpp dagaan suñu Fallou am ñi bëgg toog fii am xewal am na xewal ñi bëgg a dem bu fekkee buñ génnee seen diine seen pas-pas suñu ci wax du wàññi ko nañ dem ndax kat yoon yi pas-pas dong la waxtu nekk ma koy wax day léeg ñun ñii di tukki dem fu bëri ci àdduna day nga dem ci réew moo xam ne ni la muy rëy rëy rëy rëy doo fekk lu juróomi murit juróomi murit laa te murit bu ñu la waxoon li ñuy réagir ci yoonu Sëñ Tuubaa yi ak li ñuy jëfal Sëriñ Tuubaa ak kër yi ñuy tabax da nga li mbooloo ko man waaye Sëriñ Abdul Ahad neewoon na mu nekk kenn ci bërëb wala mu nekk fa milliard wala mu nekk fa junni la war a li muy li muy def rek ma dem ku demul ma dem te Sëriñ Cheikh na yaakaar noonu nañ sosee daara moom li may wax waxtu nekk rek nañ ko sos ci bàpp ku dem ñu dem ku demul ñu dem moo tax alhamdulilah waxtu wuñ gëstoo ñu gis mbooloo gi ginnaaw te mbooloo moom ñu gis nag jëmale ñu leen fenn fëyut Sëriñ Tuubaa am na jot ma wax leen ne leen waruñu kenn lenn xool loowuñu kenn lenn orienté wuñu kenn fenn fu dul suñu Tuubaa li fekk ñi ngi am ñi gis ñu nekk seen alal alal yu bëri suñu Babacar jël def ko def ko ci liggéey bi te bu leen sooboon mën nañu wax ne ñun kat ay soxna lañ dañuy liggéeyante rek kon yoruñu dara nañ ànd ak ci liggéey bi waaye dañuy takk seen laxasaay jël seen addiya def si ànd ñun ba liggéey bi jafe takk loolu moom tawfeexi sëriñ bi rek la. ku lay woo ci liggéeyal suñ tubaab xamal ne dara bëgg dimbale rek ndax loo xam ne boo koy def defaloo ko kenn si bopp rek nga koy defal loo ci woo dara bëgg dimbale di sant bu baax ñi nga xam ne tamit ñoom lañ dénkoon wàllum finance bi ci ilimaan ak suñu Babacar di jàmbaar lañ lool daw nañ guddi daw nañ bëccëg ak ñoom euh, ñi nga xam ne ñoom lañ dénkoon wàllum autorisation bi ak wax waxtaankat di fi jaar yëpp ak jàngkati xasida yëpp ak ñi ubbi seen i bunt seen i buntu kër ñu dalal fa gan yi ñoom ñu ngi leen sant bu baax di sant mbooleem koo xam ne rek yaa ngi teew ci ci ci ci biir bâche bi daayira yi nga xam ne ñu fi ànd ak ñoom suñu sàmbu xam ne lay doxal def ànd ak nañ ko ak ñoom ba mu mat ñu àndaat ñëwaat fii ci barab bi ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax nga xam ne ñoom it ñu ngi fi ñenn ñu jóge Ndar ñenn ñu nekk Ndakaaru ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax cant gi Sëriñ Tuubaa lañ koy seetal hmm. waaye cant gi day ànd ko soññee soññee bi moo di ne fañ jëm ak guñ fa nañ jàpp ne lañ bëgg amaguñ liggéey bii jébbal nañ ko borom Tuubaa fàtt nañ ko nañ dëgmal la ci kanam bu ñu yeewoo suba te suba jot na waajaat ci cantu déwén nga yi li ñu lépp sëñ Tuubaa jot na lépp ñun ñëpp bàyyi nañ loo xam ne moo ñoo jariñ di bàyyi ko te sëñ Tuubaa man bisu tay laa fi am fukki fan ak juróom bu mu ñibbisee ak léegi nelaw ma juróomi waxtu yu mat ba mu ñëwee ba léegi fàttaliku ma fu ma toogee nag ci mu tàpp xewlu ba suur wallaahi ngir bëgg di jagare waaye Sëñ Tuubaa mi ñu liggéeyal xam nañ ñi mën naa mën naa fay murit nag day joxe ba jeexal moo mottale koy jooy rek te nag ku rëy jooy ci Sëñ Tuubaa wala nga naye joxe ci sa alal ngir Sëñ Tuubaa doo gudd fan doo yor doo am xewal Sëñ Fallu ñu gënoon jege Sëñ Tuubaa lool te daana wax ne jooy ngir bëgg Sëñ Tuubaa man farat laa ko def Cheikh Ibrahima Fall daana wax ne murit day joxe ba jeexal takk sa biir jooy ñun ñii Babacar mi dama wax léegi ne ma suñ bi nañ ñaanal seen suñu ma ne ko tax ma ne kii jàng mi ngi jàng mi ngi neex nit ñaa ngi ko yëg mais amul lu ñu ko jox te pourtant dëgg la fi ñu toog nii man war caa la ne ko bëggoon a génnew ñaari junni yu mat dina jafe lool sama bopp laa ko tàmbalee loolu nag dañuy jéem a delloo njukkal suñu tubaab rek te xam ne lépp moom la mën nañoo gis ñu bañ a yor benn turam waaye aaju bu ñu am suñu tubaab ko te loolu mooy lépp. man nag li may ñaan ci baaxu sëñ Fall li ma ñaan fu sama moom sëñ Tuubaa tegoon tànkam bëgg naa faa jaar siyaar ngir barkeloo ko jël sama responsabilité ci daayira ma faatuwul Bichri te loolu cër la jërul Cheikh Mbacke ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax ak mbokk taalibe yi ngeen àndal ci liggéey bi yëpp ndax ndax li yombul ànd dafa metti sax ñëw buñ ko fëggee buñ ko ubbee suñu aaju faju loolu ñun am nañ ci tegtal bu wér fu ñu xamoon bi ñuy ànd ak moom démb ak bi ñuy ànd ak moom tey xam ni saa borom defal na ko tawféex bu baax a baax a baax kon sëñ Xaadim ñu ngi lay ñu ngi lay dellu di la joxaat sa wàccuwaay bu baax ba daayira bi liñ ci bëgg ànd ak ñoom liggéey ko ci yoon bi sa borom defal na ko ni nga ko bëggee ci barkeb Cheikhul Khadim ndax sa yitte yépp mooy daayira bi sa yitte yépp mooy daayira bi saa su ne duma ko taay di ko wax nee naa leen sëñ Xaadim yitteem nekkul lu dul daayira Mafatihul Bichri représenté na ko ci Gabon fépp foo xalaat rek sëñ Xaadim yeggale na fa daayira bi ma bëgg nag sëñ Xaadim nga ñaanal mbokk Baay Faal yi bu baax a baax ñaanal daayira bi ak soxna yi ñaanal leen yaram li ma la xam nga ko man xam naa ko defal li ma doon def seen aajo faju barki sëriñ Touba mboolem lu laal ci seen Maodo Mamoun nee na bind ay xët bind xët jox la ngay ñu lay jox mu weer nga koy sangoo nga tàllal say loxo aajo bu faju moo ko gën a gaaw te loolu saa def na ko ci sa jëmm ji nan ànd gën a booloo bu baax a baax mbokk taalibe ñu gën a takkaat suñu loxo saay te te jàpp ndax ànd yombul bu ñu naxante li ñu woon képp tax mu téye la barki Sëriñ Fàllu kon ñaanalal mbokk taalibe yi bu baax a baax a baax te yow li mu bëgg lépp xam nga ko sax defal ñaan mu gë mu yaatu rek waaw xewal rek. rabbi mu ijjin nabi barke bari Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sama mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu bu baax di wax alhamdulilahi rabbil alamina alhamdulilahi rabbil alamina alhamdulilahi rabbil alamina incha allah incha allah alhamdulilahi rabbil alamina maa ngi santaat yàlla bu baax di santaat sëñ Tuuba bu baax. cant boo xam ne nii am na tàmbali ci borom Tuubaa borom Tuubaa sax amul tàmbali waaye amutu bemukaay ci suñu xol ci cant guñ cant borom Tuubaa ci bis yi ñu sant Sëñ Tuubaa monsieur bi ci cérémonie bi jëluñu kàddu di sëriñ si wax benn sëkk sama diggante yéen xam naa ni waxtu wi dinañ sonn waaye des na jar ñu soññantewaat bu baax a baax rek li tax may sant Sëñ Tuubaa bu baax nag di ko jaarale ci yéen moo di bu fekkoon tey ànd nañu ànd jëmm la ju dund juy dund muy góor wala muy jigéen bu fekkee góor la mën nañu wax ne ci ñun dem na daara ba fer na ijji ba tàmbalee boole ndax juróom-ñetti at ci ay cant te daayira bi ëpp na juróom-ñetti at ndax def nañ daayira bi ab diir doog a tàmbalee cant yi te at mu jot fañ ko tàmbalee woon ci benn baas bu mel ni ko tàmbalee ba yàgg ñu def ñaari baas at mu njëkk ma ñaareelu at ma benn néeg lañ dalaloon gan yi ñu koy nekk xaadim caam daal di ca def fii lu nuroog jafe-jafe te du jafe-jafe loolu dem jàpp ne day ànd ak liggéey bi dem waaye la yóbbu loola teewul jëmm yeeg roox yi ñu ngi fii di ko liggéey bañ dem ci ruq bee dem fee ba ñëwaat fii te incha allah rabbi bu laajee fu gën a yaatu fii des na fa dem te lépp nag ñu ànd ko yéen ci ànd yu rafet boo xam ne suñ ci war a tax bu fekkoon liggéey bi fii la sax ñu mën a wax waaye liggéey bi dafa àgg fépp bàggatu baax bàgg fépp bu ngeen ñëw magal Kazu seen i xéewal seen laxasaay nekk ba wàññeeku <coughs> te nekk mun la def rek noo ko def rek mun la defa tax ñu ngeen ma defa tax lu mu leen def xepp ci sama jëmm ji safoo am na faale am na te nit ñu fulla lañ suñ fàllu daan wax ne ab afe afe dee su ko wax doo ànd ak moom mukk naan ko waxu suñ du ngeen bokk di lekk mukk mu naan ko lekkal baax te loolu ko wax yem ma fii bala nga ko wax yem fii mu yem la foofu ni ngeen pëste ko ba tax at bu jëm ñu tànn tànt bii njabootu suñ tubaab gi ñu bëri ñëw autorisation bi ak kilifa yi nga xam ne dañoo nekkoon fii def liggéey mooy taximaan yi nga xam ne saa bu ñu tànn tànn dinañu dimbale may ñu ay ab bis ñu def ko ba mu jàll ñu ñëwaat ñoom ñu leen di sant bu baax a baax a baax a baax di sant ndax bu ngeen gisee waxtu nekk ñuy moytu yu bari ci bis bi am na ñaari directeur général yi fi ñëw ñoo xam ne kenn ki oto bi moo ko joxe sànq yi ñoom joxe kenn ki moo ko joxee te suñ ci wàllu yi jëfal kenn ki toogoon fii léegi ki mu ki njëkk ki mujjee ñëw ab ab taalibe la. moo jiite ministre mooy directeur distribution internet la liggéey dañoo toog tuuti mu ne daay toog même pas une minute mu ne sama soxla daa war a yóbbu aéroport waaye maa ngi lay waat projet Cheikh Ahmed Tidiane de bu ma duggee ci bâche bi naa ci sama xol Sëñ Tuubaa te taalibe Cheikh la te alal taxut bu fekkee alal tax ñu ñu am na ndombal tànk kon bu ma nee wax ci yàlla dugg ci tàtte bi yëg Sëñ Tuubaa loolu ñii ko woote ñun la suñu saf Sëñ Tuubaa ku ñëw xam ne Sëñ Tuubaa ngi kon nañ jàppaat bu baax bay mbay nañ jàppaat bu baax bay Cheikh yéen nañ suñu kanam ñeme nañ ci lépp nag ndax waxtu buñ gisee buñ gëstoo gis leen ngeen jiitu suñu kanam yu ñaanal suñu xel dal na lool jàng nañ ci lim alxuraan yu bëri li ñu xasida yu bëri lépp ñu jibal ko borom Tuubaa ci am nag ci baaxu borom Tuubaa rek bu lamp yi fayee jafe-jafe yi fay barke Sëñ Fallu bu jant bi fenkee xewul yu fenk man daal maa ngi ñaan yàlla ci baaxu suñu Tuubaa ku ko jox ko jox ko jox ko man de man de yokk naa wax dëgg yàlla at ma koy ñaan di leen ko ñaanal man de ñaan loolu maa ngi bu baax ndax at mu jot su ma jeexalee takk su ma lambaatee mu tooy xëpp suñ tubaab jox ma boobu xes dàll te xam naa ne yéen ñëpp fa ngeen nekk baax si ñaafe yi ñi xam ne si mor tam si ñaafe la mu dem ba leen toog ànd ak ñun bis bi ak mboole lépp suñu Babacar rek su ma limee du ma jum mais naa fàtte mais ñi ngi sant mboole lépp ni nga xam ne wax ay kuréel lañu suñ bay jàng ñi nga xam ne bokk na jàngat xasida yi daayira bi suñu xarit yëpp rek xam ne waxtu ñu wootee ñëw bu bis bii am leen di sant bu baax sant boo xam fu mu yem soxna Maram ñu ngi leen di sant bu baax gis nañ seen taxawaay bu baax ak seen jëf ñu ñaan di baaxu suñu tubaab li ngeen di yëngu mu barkeel su boobu defal leen njaboot bu barkeel ba li ngeen yéen ci yoon suñu tubaab lépp ngeen am ko ci barkeel suñu tubaab asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh déwén rek xéwal ñëw dok suñu fàll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 fukki fan ak juróom ñett ci biir safar mooy bis bu mag waral ñéppi safar